mbokk yi salaamaaleykum di leen jaajëfal ci ànd bi topp ak seen site comme numéro 1 de l' actualité sur mobile dellu soit ak yéen ci jotaay waxtaan yi muy amal ci tolluwaay jamono ma ci ànd ak sama jigéen soxna Aida nu fas yéene dalal tey oustaz Iran Ndao fas yéene sëkk ak moom waxtaan ci ñaari fànn bi ci njëkk mooy ci wàllu gën a féete muy diine bi nga xamante ni yàggul dara léegi ñu àgg ci eh, tabaski bi ba ci topp nag ñu am ak moom ci ay question yoo xamante ni dafa soxal wàllum actualité kon euh, damay jox soxna Aïda rek mu daal di nuyoo rek ñu daal di dugg ci waxtaan wi ak oustaz. yaa Moussa di nuyu ñu ngi lay dalal ci jotaay waxtaan Sénégal bi. waaleykum salaam. ñu ngi nuyu ñépp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Sénégal di leen ñaanal yàlla. may leen jàmm may leen sutura jërëjëf Oustaz dañuy ubbee waxtaan wi rek ndax euh, des na tuuti léegi mu àgg ci euh, tabaski euh, ñu bëggoon rek nga dikkaat ak ñun ci taxawaayu tabaski solo si ak li mu doon lan la. waaw jërëjëf tabaski xale ko moom. ak mag mu yiw ak jigéen ju nangu xale bu ñu yar ak mag mu mën a yar ak jigéen ju xam kuy kilifaam Seyduna Ismaayil tabaski ci moom la jóge Ibrahim sallallahu alayhi day wax ne a tajriba qabla al muamala bala ngaa dugg ci lu mu mën a doon natt ko ba xam parce que day bañ nga dugg rëccu Ibrahim dafa wan yàlla ni mu mel ci moom boolewu ko dara dem ba Ibrahim or bi mu yoroon mu xëy def ko collier takkal ko xaj ñuy wër dëkk bi lambar lambari ñu ni ko Ibrahima lii lan la mu ne alalu àdduna médd la médd xaja ko moom nekkuloon faqiir de déedéet nekkul faqiir de médd xaja ko Seydi Hadji Malick wax na ko parce que nee na àdduna médd la yu jaasibo ak kilaab faasar bi tilkal kilaab nee koo gis muy kër-këri ci àdduna neena na àdduna médd la xaja koy xëccoo kon moytu la bokk ci xaj yooyu moytu cee bokk bi Ibrahima jëlee li mu am ci or takkal leen ñu ni Ibrahima daal yàlla la yàlla xam ni or garaawul xaalis garaawul comme ni Sénégalais yi garaawalee aljana ak ay safaraak yu yëfu dof yooyu mais nit ci li la yàlla digal moo dàq aljana am déet moytu li mu la tere moo dàqaal jana parce que tant yaa ngi yëg ne yaa ngi ci ndigal rek yaa ngi ci aljana Ibrahim yàlla ne dinaa ko tegaat nattu li yabluwukum ayukum ahsanu amalaa yàlla bi mu bindee jaam yi wàcc leen pour jaamu ko tax mu ne damay xool nag ku ci gën a rafet jëf mu bàyyi ba guddi mu ne pëkk pëkk Ibrahim ne ko li ngay woote bu dee dëgg la rendil sa doom ji nga yor doom mooy alal rendi ko ti ma tax bu ko rendi ti nga tax su dee li ngay woote ne man bëgg nga ma sa borom laa ci man nga wéeru su dee dëgg la li nga ko mën a dëggalee mooy doom bii toll ci dox yonent nga di ko yónni fu ne ma rey loola ko nga rey ko doxal sa bopp yonent Ibrahima ni ko loolu du dara yàlla xanaa xamoo ne yaa ma gënal doom gënal ma ndey gënal ma baay gënal ma lépp inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin sama dundu sama jaamu yàlla par exemple sama lépp dund ak dee yaa ko moom man awma dara man Ibrahim mu ne ko pour ma gëm ko rendil sa doom xam nga foofu oustaz dinaa fi taxaw. nga fee taxaw. parce que seetal xale yi tey ku seetaan Sénégal dégg lii ban xale nangu lii ak ban baay mooy dund lii léegi wax naa baay ma seeti nag bu xëyee nu muy def bi mu xëyee mu dem fekk is xam nga Ismaayil baayam tudd ko yaayam mu ko tudd jigéen mën naa tudd doom mën naa rendi ci buñ ko ko jàngalee dara newu ci oustaz yee leen di dofloo rek tus nekku ci lu ci ne xam nga Ali ibn Abi Talib ku ko tudd laaj la ko Fatimatu bintu Asadin mooy ndeyam Fatimatu bintu Asadin kaw bàmmeel boo ko bind ba ba muy raaf dootuñ mbugal borom yaay aliin Fatimatu bintu Asadin moo tudd Seydina bi muy juddu dafa fekkoon aboo taalib voyagé bés ba dellu mu tuddee ko xaydara lan mooy xaydara danaa ñëw yenaa daraam la ndamul di mu tuddee ko xaydara bi aboo taalim ñibbisee fekk fi liir fekk fi tur xam nga arab dañu rëy mu ne ko man jigéen du ma tuddal doom damay changer tur bi tuddee ko Ali te Ali ak ay dara benn la rek Ali mooy ko not sa jamono not say morom Haydara mooy ko not rabi àll yëpp di gaynde gaynde lay firi Haydara du sant de turu gaynde la Haydara du sant sant bërki démbali fi ñëw yonent yi amuñu sant ay moo ñu bëgg a rey nag sant ñu bëgg a rey parce que boo santu sant wi doo bokk ci yëf ah, loolu day xew ci jamono. waaye ma ne ba faw nga naan lan du fi jóg parce que aada ju sax sell la li Sidi Hadji Malick di wax. moo indi lépp. waaye ku ñu xeeb nag ci yow la ku am fula doo xeeb sa bopp ku doo xeeb sa bopp xay dara muy firi gaynde lu tax mu tuddee ko Haydara lu tax mu tuddee ko dara mooy gaynde man ci àll bi mu bëggoon doomam man ci nit ñi baayam ñëw aboo taalib ne ko sama doom jigéen duma ko tuddal am na góor ñu mel noonu man jigéen duma defal li ci sa ndey di jigéen boo xeebee jigéen xeeb nga sa ndey koo ko tuddee mu ne ko gaynde mu ne ko déedéet man noteel laa koy tuddee superviseur ku tiim ñëpp moo gaynde benn la kee not ci àll bi kii not ci kër gi rek yàlla ne ko muñal danaa ko defer ñi tuddee ko ali baayam ñu ne Haydara Karaara loo ca man yàlla ko sa doo ko doo ko perte jamais ñu ne Alioune Haydara Karara lu Karara di firi kar muy firi ak xar yi ñuy dem mooy akkaakoon bi mbooloom yii fir mu mu dugg rey ñi ñuy daw mooy Karara ku muy xeexal bu àkkee sa kanam rekk nga daw baa mu rey la Haydara nag mooy gaynde kon lebbaay ba doon bañ faf na am waaw. parce que sunu borom nangu na ne lii moo mën a ne donc kooku nag soxna si bi mu xëyee fekk doomam toog muy Ismaïl Ismaïl yaayam ma ko tudd xam nga fu mu ko tuddee bi ko bàyyam yóbboo màkk parce que Saarata moo ko may Ibrahim Saarata buur Misra ko ko jox àddiya ndax jaam la bi mu ñëwee mu joxaat ko moom saarata Ibrahim ni ko gannaaw amuñu doom te xale la mu lay toppatoo <laughs> mu toppatoo mu ne ok far yàlla dogal ñu séq sëy rek Haajara ëmb ci paawu cent ak xale trente ñu ne ëmbalu ko waaw oustaz ñu ne ëmb lu ko kon xale yi la dem gisil wala day mooy parce que cent ans mënta am doom ak trente ans vingt cinq ans ñaaw njortu dugg moo tax àdduna ku ma gis ngay est billaahi billaahi wallaahi tallaahi oustaz aw ma stress aw ma souci xam nga lu tax lépp yàlla yàlla ku ñemee kaas mbiram lu ko neex lay def fas biir lu xukumi rabbi ko loo ci man li ma àtte da nga koy accepter ma teggi ko nga bañ ma renforcer loolu ñeme nga koo jàngat stressé wala nga am souci foo ko kan moo ko yow da nga ko ma yow oustaz da nga ma koo jaral wala ndaw si daf ma koy wala yéen ñi seetaan da ngeen ma koo jaral kenn jaraluma ko loo waxti defuma ko jël naa si yiw su dee maa ko def engage wala man la engage nit dafa gëm yàlla pour mu noppal boppam kaay ma wax leen oustaz ba àdduna sosoog léegi lii la fi naqar yàllaa la ko teg wala nit ne ma nit da ngay fekk ndaw si mu toog moom ndaw sii di nii ajaa lan la mu ne dañ maa fase def nii Adja lan la mën a suma jëkkër a dem def nii Adja lan la xale yi laa mën a dara ba léegi newul damaa julleegul suba wala dama ajiwul màkk wala dama woorul wala dama ajul e, nu mu tudd demul aji wala nattuma asaka wala sama dëkkandoo bi ma lor moo ma taxati dara yàlla taxul mu stressé wu taxul mu am souci lu dul moromu itam lu ko fi jar. kese ma defoon dangaa biddanti oustaz ma fekk la nga julli di jooy ma ne oustaz lan la ngeen ma damaa yéex a julli bàkkaar bi ñu may bindal fa waylun lil musallina alladina ma an salaatihim sa saahoon moo ma tax di jooy seetal loolu mais koo gis ñi seetaan seeni góor ñépp ku am lu la naqari nit a la ko teg ku am lu la jaaxal nit a la ko teg problème yoo am ci nit la jóge demal ci politik bi diini jéeg yépp stress yi nit nit doxul Ibrahima amuloon lool bi coow li bëri yàlla moom daf ne patte rek xëy yónni Jibril mu ngi ci alxuraan mu ñëw mu ni ko yàlla nee na dina la may doom waaye malaaka yi ma àndal dañuy dem sëddoom fa yonti yàlla lóot nekk yonent yàlla loolu xam nga mooy lan yonent bi ñu yónni ci góor ñiy sëyante mooy yonent yàlla loot waaw loolu lay firi mooy yonent bi ñu yónni ci góor ñiy sëyante caaye summi caaye sëyee fa kabine yi génne nga juutu mu sëyee la fa sa kabine yi génne ngeen naan góor jigéen góor ñuy juutalante ngeen naan góor jigéen ay wuyu lañu ah lañ ko mën a woowee ay wuyu caay caay rek. sikki ak sikkim mustaas ak mustaas li ci sa caay ji moo ne sama caay ji nga ma summi la tëddee la nga summi ma tëddee ma fi cabinet di génnee li xewoon grande mosquée gis nga góor jigéen nañ ci dëkk bi ne xas dañ koy nëbb rek xas laa yént yàlla lóot nag lañ ci yónni woon ci dëkk bu ñëw sa doom parce que li nga ma bëgg laaj il faut ma wan la tracé bi sa doom gis nga góor jigéen bu dee luy àtteem ci charia dañ koy jam di ko jam muy yuuxu ñuy jamat muy yuuxu ñuy jamat muy yuuxu ba mu sedd guy réew mii kenn du fi signé góor jigéen Iran Ndaw la ko wax maa la ko wax duma xale nag kenn du ko signé coow li mën naa bari nag jarul dem ci sëriñ si jarul dem fenn dañuy rëy làmmiñ naan sëñ Muntaxa ñemewu la ñëw France ah est xam nga ne góor jigéen ñi bëriwuñu est xam nga ne bariwuñu ah bon hmm. xam nga làmmiñu rëy bokk la dul wax sëriñ Muntaxa bu bëggoon a dem France lafa fa sëriñ Touba am bu ñu génnee waxuma góor jigéen song ko waaye duñ am fuñ jaar ñaata million la sëñ tuubaa am. France Cheikh El Hadj ñaata million la fa am. bëri na Pape Serigne Mbaye Mansour. bu jógoon wuti France na dem. day gëmm di dox. yàlla nañ fi yàgg loolu te wér. dama ne day gëmm di dox parce que ña fa Maodo am bu ñu taxawee buñ ko aaree waxuma sax ay góor jigéen mais gouvernement bu Macron mënalu ko dara. seen làmmiñ rëy rek li ñu wax ànd naa ci cent pour cent. Pape Serigne Mbaye Mansour. Mhm. Serigne Mountakha Mbacké. Mhm. seen position ci yàlla na yàlla baleen. seen position ñëpp ci ànd. macha allah yàlla sax moo ci njëkk a ànd. parce yàlla ko tere ci alxuraan ñu naan ñeme wu ñëw France yow li sëñ Alaaji Malick en France. sëñ Touba ko France yow loolu bu ñu doon ñëw loo leen maanaam. sax oustaz yemuñu ca bu fekkee fi yaa ngi ci réseaux sociaux wax nga xalaat gu woroog ñoom lanu bëgg ci seen mbir góor jigéen googu dañuy tëj sa compte. waaye ma ne tëjuñ sa compte dañ koo mën a tëj dama laaj. maanaam la ngay jëfandikoo wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda Allah jullit gëmul loolu yàlla nee na compte bi ma la ubbil bët du ci tegee. mbiru xaybu la ko. loo def ci lu baax ma dencal la ko. loo def ci lu bon ma dencal la ko. soo ëllëgee ñu peese mbaax geeg bon bu mbaax gi ëppee. nga am ngërëmu yàlla su mbon gi ëppee yàlla ne la yaa xam yeneen bi ne tëll ràmm la sallallahu alayhi wa sallam mënuñ tëj kontu kenn dama ne mhm. góor jigéen dañ koo war a rey dama ne góor ji. waaye yow itam soxna si yow mbir soxna si soxna si soxna si soxna si oustaz. déglu leen mu baax ma wax leen def oustaz ah. oustaz ab ndongo laa rek journaliste la. yàlla na nga doon oustaz. Ah. waaw ñu ngi lay déglu déglul ma wax la. kon bismillah. ku bind l'homme. Allah. ku indi droit de l'homme. nit déedéet. non droit de l'homme bu alxuraan am na. déedéet bul bu tuddati beneen kon yàlla neel yàlla. yàlla kon droit mooy lan mooy li la war li nga moom yàlla bind nit ne ko sa droit mooy su dee góor nga ñuy séyee la dañ laa war a rey loolu mooy droit kon ki bind lom tere lom digal l'homme l'homme ni moom waru ko indil beneen droit parce que ñun gëmuñu ko dul yàlla caaxaan la rek. ak neexalaate parce que fa signature ba jógee dafa sori ci nee nañu am nañu doole amuñu doole doole yàlla ne ci suuf si inna laa ala kulli shay'in qadirun mooy waaw gis nga bul nangu mukk oustaz soxna si bu leen nangu mukk lu nit rëy rëy wax ba mu jël waxam teg ci kaw loxo waxu yàlla. Hmm, sañuñu ko sañuñu ko. bu leen ko xalaat jamais. yàllaa bind l'homme moo tëral droit de l'homme ku naan sàngara quatre-vingts yar bintu samaaniina ku xas gor quatre-vingts yar alxuraan la euh, ku njaalo ku njaalo cent yar boo amul jabar amoo jëkkër su dee ndaw sii am na jëkkër njaalo dañ koy jamat ba mu dee maanaam fekk si àtte ñoo bokk àtte danañ leen sang sàng leen jullee leen ku leen di jullee Iran xam nga man wuyu ñu jox ma ko mu jullee leen maa leen gën a bàndi waaw dañuy seet ku ñàkk daraja ku ñàkk solo moo koy jullee gis nga nag li wuutale góor jigéen góor gi ñuy sëyee góor ñuy sëyante xam nga lu leen wuutale ak jigéen ji njaalu te am jëkkër ñu rey ko jigéen ji njaaloo am jëkkër ñoree ko buñ ko sangee sànk ko ci armeelu jullit yi liñ koy suul kenn du ko toxal góor gi ñuy séyee suñu ko reyee dañ koy sang sang ko wut ku ñàkk daraja ak ñu ñàkk solo ñu dem suuli ko ca armeelu jullit waaye bu ñuy suul malaaka yi sulliwaat ko yóbbu ko ca armeelu góor jigéen yi mooy sëddoom ñoom ñëpp fa la ñuy dekkee man damaa xamul sax leen ci neex yow loolu seetlu nga ko. Ah, doy na waar moo jaaxal ñëpp. ko ëpp na tool di. góor gu bàyyi caayam man nag bala moo woon a neex ñu dagg seen seen géen yi nañ ko dagg dugal fa awra jigéen ah du dañuy jaay ay rek. Euh, euh, ma ñëw ma ne ma ñëw. est-ce que yegg nañ ci biir. jaaxal nañu de. waxal yow mi wax wax ji soxna si. xam nga mën nañoo dagg awra bi poosé fa awra jigéen. transplantation léegi waaye déglu ndax ñu ngi biir. ah yàq nañ ma niiw mi di yàq nañ ko gis nga nit ku dem ba xamatoo fooy teg sa tànk moo leen dal. tabarakallah oustaz. nit ku dém ba réer moo leen dal. malaaka yi jaar ci Ibrahim war a sa doom dañoo wëlbati suuf ci kaw góor jigéen ñi taw taw xeer rakiste leen foofu la ñuy dekkee la mu jaal xuraan bi ñu fa jaaree nag ci la Jibril wax Ibrahim ne ko danga am doom yaag saarata pour Haajara mën a am jàmm Ibrahima cent saarata cent ans ñu jur Isaaq te tubaab ne quarante ans ménopause la ñaari cent jur seen taaw muy Isaac ñu ne kon Ibrahima moo jur Ismaïla parce que ñaari cent ans bu ñu amee doom cent ak trente war na ñoo mën a am doom tuuma jeex. kon ña tuumaaloon. tuuma jeex maanaam ko oh, tuuma ja jeex na. mu jeex tàkk kon. xamoo bëri na kuñ setal ci setul. Mm-hmm. Ah, eh, eh, eh, fii Sénégal la. bëri na kuñ setal ti mu ngi ne rappaj taq setul. fii Sénégal mais li ma neex mooy yàllaa ngi fi bis dina ñëw mu ne xay ne cëpp ci pénc ne coow li bari na maa fi ne bañ yegg ca xam nga léegi déggatoo corona looy dégg lab. lab da la ñuy ci géej ci géej looy dégg du accident. accident déggati nga corona. ñammax doxal ñu dem. leneen dana ñëw lu gën a garaaw. yàlla du fowukaay sëñ bi kilo la bind melal la nii tabaski jot nga reen di xar yaag say doom ngeen lekk di bég nga teg sa jàng alxuraan di seeñu sa yàpp te xar mi am ndey am baay sa doom bu deewoon tey doo tabaski nga rey doomu jàmbur di ko lekk doo sant yàlla mi la defal li fal yaabudu rabba haada al bayti at at'amahum min juin wa amanahum min xawf ki la jox lekk gi doo ko sant sëñ bi loolu la nit ñi war a def voilà kon mbokk yi lépp ci tabaski bi la bu fekkee yéen a ngi suivre ah. euh, maanaam raisonnement oustaz Iran ndax dañoo ubbee tabaski waaye njàngale yëpp daanaka bu ngeen ko toppee rek voilà ci biiru euh, tabaski la ak yi xew ci jamono ak njàngale yi ci aju kon oustaz ñu bàyyi la. Euh, jërëjëf oustaz si nga gis am na doom ak Isa ak Saarata. ak Saarata tuuma gi teggeeku na. tuuma jeex na jeex na. gis nga góor pur. góor dëgg. ku gëm yàlla pire. nit du la yëngal. jamais. doo stressé. waaye ban stress yi xanaa xamoo ne yaa ngi feebar boo xam ne mu ngi wéy ak yow. kii am na ko kii am na ko man am naa ko man man furux furux yaa ko gën a xam boobu yi niroog mbaam xuux. furux te xam naa ne dangeen teg mbaam xux teg ma. <laughs> xam naa leen waaw sañu furux furux. mooy lan <laughs> noppi bakkan yuy fax fooxi rek. suñu <laughs> waaw mais teewul. nit ki day gëm ne yàlla bu la bindee. Mhm. dana la teg loo koy fàttali ko. su la bàyyi lépp di dox dangay ngay beew. moo tax dana la teg loo koy fàttale ko. Mhm. Euh, maam maam saarata gannaaw amagul doom te haajara am na doom fiiraange dugg ko ti moo ko mayoon ibrahima amagul isaaqa amagul isaax gannaaw kii am na fi doom nag mu di ko fiire ba ci kër yonente yooyu hmm, waaye dangay xam ne ay nit lañu yonent ak nit du benn nit ku ñu yónni leen nit ku ñu yónni mul fàtte loolu oustaz nit ku yoon yónni malaaka rek amul lool parce que malaaka amul amul xel amul bànneex du lekk du naan du nelaw du gëmmentu malaaka rek rek moo dul am yooyu exécuté rek waaw laa yaasuuna allaha ma amarum wa yafaluuna ma yumaroon ñoom lu leen yàlla wax fam leen ko waxee lañ koy defee tey bu ma doon malaaka yàlla ne ma acca Iran ñibbil Tiwaawan du ma jaar ni damay xuus faranteer bi rek bëtt uti Tiwaawan wa yafaaluuna maa yu umaroon mu xatal ko nag ba pare di am baat bu sew bu koy wax jaam rek nga woon buur misra may mala la may la Ibrahim nga nekk moom jur sa doom ji buñ tëddee muy jooy kenn mënu fee nelaw dugg na fi génn na fi ah gannaaw jaam la woon du mën a riposter ni war a riposter mu ngi mel ni mbinduwaan yi ci kër yi yow mi jël xale bi yaay mbindaan yow yaay mbindaan yaa ko bind moom mi lay liggéeyal muy mbinduwaan léegi-léeg nga dégg ko naan mbindaan ni ñu salté fekk sa bopp ngay xas <laughs> ah yaa ko bind di yaa ko bind dëgg moom mbinduwaan la da wër di bindu ku soxla jànq mbinduwaan ak jaam duñ am fit duñ am fit moo tax maam Hajara amul fit parce que du gor jaam la Ibrahima jël ko yóbbu ko ca mag ca Kaaba ga booba kenn dëkku fa kenn arabi àll yaa fa dëkk ñaari montagne fa bu ñuy wax Safa ak àllu kese la Kaaba ga ne jungu mu yóbbul ko ndox yóbbul ko lekk yóbbul ko lépp defal ko mbaar ne ko dëkk fi du gor yenent da daan wax ne al faqru adduun nee ñàkk noonu la bari na ku ñuy sewal ci kër ak di la doyadal ci duñ la yëgal dara danga amul loo joxe waaye boo amoon ñu boole la ci mu ne ñàkk nag noon la bul ne gars yi dañ maa noonu déedéet li nga amul a tax ñu noonu la mu yóbbu ko ci àll ba mu dëkk fa ndox ma jeex lekk ga jeex te àll bi gaynde ki bukkeeg lépp fene xoolal mbaar moom ko yóbbu man bu la neexee ma taxaw am lu ma la wax. ban jigéen ngay takk tey yóbbu ko ci dëkk kaw ga mu di fa toog. bareetul de takk jigéen soxna si mu ne ci teeru bii baayam di ministre walla bàyyam di président mm. nga takk yóbbu ko ca àll bu xonq ba muy jéeri gerte <laughs> ak foor gerte dëkk ci néegi njax di togg cere mbuub yéen jigéen ñi ku ko ci nangu wax ma yéen ñii ci Sénégal laay waxal ku ko ci nangu yéen ñii ci Sénégal wax ma ko bariwul de bu dee am na mu ba ko ca àll ba jaam la xam nga aljana lu fay dugal nit lan moo du jaamu yàlla de xam nga safara lu fay dugal nit laaj nañ la. ñu bañ a jaamu yàlla de aljana nangoo fay dugal nit safara lànk fay dugal nit lànk xam nga ki lànk nga duma ko wan ko ne acam